ñoo ngi ci box numéro 13 taxaw ak un très grand champion ñu koy wax sàmba Samba Naar muy liggéey ci élevage bi nag liggéey bu ama ama am am solo toog ci ruqam nag boolewul daraa ki wax ñu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur Ladoum TV wax ñu exposition bi naka la defee sélection bi. waaw waaw waaw di ziar ñëpp di ziar vraiment téléspectateur Ladoum TV yi waaw di leen wax ne di kontaan di leen kontaane waaw di leen wax ne vraiment yéen moom ñàkk leen a xam wóorut. waaw éleveur moom ñàkk leen a xam wóorul waaw xam nga ba pare waaw di làqatu di làqatu rek aussi ci élevage moom mënta koon ne daal mënta koon ne waaw ma jàpp ne nag moom waaw man dañ maa war a wone te fii lañ ma war a wone ci Ladoum TV waaw vraiment. loolu dafa leer kàddu téléspectateur Ladoum TV yéen a déglu kàddu yooyu tuwaar fakkal la yàq yàgg naa ëkku toog di liggéey kenn gisu ko tey nag dafa war ne poulet génn mu ñëw fii ci deuxième édition foir bokk sàmm ànd ak ànd ak ay ànd ak ay ay xaritam ànd ak ay am di jàmmam ñoo nag def benn sélection bu teng sélection bu sévère ñu gis ci benn maal bu extraordinaire nga présente ñu maal bi wax ñu fu mu bokk ak mi ngi toll ci ñaata weer. waaw waaw maal bi mooy Aline Badara Sène président 100 pour 100 élevage laa ko tuddee sama xarit waaw am na trois ans ak 5 mois comprendre nga ci nation la bokk maanaam dañoo jël daba teg ko ci Daouda mu jur ko moom. Daba Vénice moo ko jur mooy fomeel bi nekkoon ci booy Ibrahima Ndiaye Timtimol Daouda renaissance ay papaam renaissance nation waaw noonu la demee waaw. ah kooku mooy Aline Badara Sène président ñoo ngi lay siyaar de passage di la bégee président nag faaw nga ñëwaat ñu defaat ngénte li ndax kii moom faaw ñu ngénte ko tubaar fakkal la grand sama naka nga gisee production. waaw macha allah macha allah macha allah macha allah vraiment. production yu doywaar lay def yu doywaar waar Alioune Badara Sène mën na wax sax lu bari parce que am na fa jeune bu doy waar waaw boo xam ne chaque jour mu woo ma di ma laaj naan moom est-ce que duñ ko nangu ci man waaw waaw macha allah waaw. waaw loolu dafay sedd xol joxe xar ba ñu koy toppaat ci xar moomu naan jox ma ko jox ma ko muy laajaat kaka ko joxoon ndax ma joxe ko wala dama koy téewaat kon loolu am na solo ba tey ci biir box bi rek gisaat nañ fi exposition bi gis nañ fi benn añel bu rafet bu doy waar bii surtout magistrat la parce que doomu booy badu bu magistrat la waaw bi moom sama grand bi ndeysaan sama grand bu ñàkk kiñaan bi moom ma ko jox waaw moo tuddu Badiane waaw moom mais nag mu ngi ci troisième mu ngi ci troisième portem nii waaw mi ngi ci troisième portem nii waaw waaw. moom moom euh, naka nga gisee production ak Aline Badara. waaw moom. amagul benn doom la amagum ak Alioune Badara dafa seexoon ak Alioune Badara mais euh, benn bi dafa mujje daanu man nag Alioune Badara dafa am dama cee xaw a am nattu maanaam may ñi ma ci may tëb ñëpp moom lañ doon waxtaanee léegi doom yu extraordinaire lañ ci am mais man pratiquement yi muy am sama kër yëpp ñaar laa ci mës a jaay yi ci des yëpp dañoo daanu dama ci am nattu mais doom yu extraordinaire lay def mi am naa ci yu ma yor ci sam xam nga am na mais ak ñoo ci may tëb moom ñëpp amul kenn ku ci regretté tëb bi mais man Euh, nu mu tudd production vraiment aw ma ci waaw amaguma ci chance amaguma ci chance te maal bu ma bëgg la parce que dama kaa def comme sama doom waaw daf ma waaw macha allah moo grand ñoo ngi lay ñaanal yàlla defal la barke defal la xéewal ci maal bi ba nga am ci production bu mucc ayib am juddu la ci ay doomu champion yi nga xamante ni si dañoo war a yéeg podium ndax kii xaroon daanaan la dama koo gëm dama koo gëm parce que dama xam fi mu bokk ma xam fi mu bokk te sama gaa yi xam nañ parce que ñu ci bari sax dañ ko daan xeeb mais fi mu toll nii dañ ca dañ koo commencé bàyyi xel ndax production bi ah kay léegi rek ñu ngi may woon benn femelle bu mu benn euh, tëng bu mu jur mu am doom bu doy waar léegi avant ngeen di ñëw léegi waaw waaw waaw. mais aussi ak loolu ñoo ànd. waa ci la bokk loolu ci la bokk waaw. fàttali ñu bergerie fan la nekk ak numéro téléphone. maam bergerie maam Fallou lañ koy wax. route dee Niayes en face station pompage bi waaw. numéro téléphone 77 047 45 45 76 3 628 di di leen bëggee nag bu wér a wér waaw di ziar waa Ladoum TV merci